الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ey yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñu ngi seede na yàlla dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu ñu ngi seede na muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo yeyoo jàngale nañuy jaamoo yàlla ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla fexe ba dugg ci seeni wax kon de yàlla dina yéwénal seeni jëf te xam leen ne ki topp ndigali yàlla ak ndigal yeneen ci yàlla kooku texe na adduna texe na allaxira gannaaw loolu mbokk julit ci àjjuma yi wees am na xutba bi fi jaaroon di wax la nga xam ne mooy sawara ak la ca nekk yàlla waajal ko ay noonam yàlla na yàlla musul ñi ci tey nag ñu bëgg a fàttaliku kër ga nga xam ne fa la ñu jóge mooy sunu dëkk cosaan seytaane moo fa wàcce suñu mam aadama indi ñu ci kaw suuf waaye suñu borom yàlla mi ngi woote waat ngir ñu dellu ca kër googe mu ne wallahu yad'u ila daari salaam yàlla ngi woote ca kërug jàmm ga muy kërug aljanna yàlla mu ne mooy jubal ku ko neex ci siraatal mustaqim loolu mbokk muy war a yóbbu ci julit mu boole ñaari mbir xemmem lool fagaru taxaw ngir jëm aljanna waaye boole ci nag ñaan boroomam subhanahu wa taala bu ñu delloo ci téere yàlla bu tedd bi dañuy fekk la ca rot ci ay aaya rot ci sunna yeneen tamba ci loo xam ne yàlla nga koy waajal nit ñi ci biir ajjana ngir xemmem looleen ca loolee mbokk bari na lool doonte ne ne mënuñoo teg lépp ci xutba bu gàtt bi waaye lenn la nga ca nar a jote dégg dana la yóbbu lool ci coonee jaamu yàlla yi woyof ci yow lool waaye bànneex yi nekk ca mooy yàlla it mun ko woyof ci yow lool ndax loolu lépp da ngay gis ne boo ko deful mën na laa xañ àddina jooje mbokk suñu borom yàlla xamal ne képp ci ñun day waajal na la kër ci àjjana yow nag yaay góorgóorlu ba dugg ca ci ngëneelu yàlla wala yaay sàggan ba yàlla jox ko ñeneen ci maanu teem ajjana jooje dafa am yoon wuñ ko war a jaare yoon woowu mooy yoon wa yàlla rëdd ak yonentam alayhi salaam leeral ko képp koo xam ne taxaw nga ca jëfal ajjana lañ ko war a jëfal ku mel noonu day da nga bokk ci ñooñu ajjana mbokk ajjana ñi ngi ci asamaani juróom ñaar ya yàlla denc ko ci kawam suñu borom yàlla subhanahu wa taala wan na ko suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ci guddig rañaan nga borom bi subhanahu wa taala ne walaqad raa walaqad raahu nazlatan uxra inda sidrati lmuntaha indaha jannatu lmawa la nga xam ne mooy sidratul muntaha ba nekk ca kaw asabaani juróom-ñaar borom bi nee na àjjana foofu la nekk waaye ma nga nekk ca kaw asamaani juróom-ñaar amma yaatuwaayam ba sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na saari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin suñ borom nee na yaatuwaayu àjjana yaatuwaayam ba mooy yaatuwaayu asamaan yi ak suuf amaa nam guddi moom yàlla waxu ko nam yaatoo rek la ñu yàlla wax mbokku àjjana jooje da ngay gis ne la nga xam ne nekk na ca ci ay xéewal bokk na benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu koy tënk ak benn aaya alquran bu koy tënk aaya ba ma nga ci suratu sajda nga xam ne daanaka àjjuma ju nekk yonent bi daana ko jàngal sahaaba yi borom bi ne fala taalamu nafsum ma uxfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kaanu yamaluun amul benn bakkan bu mën a xam li yàlla dencal waa ajjana ngir fayee leen ko ci lañ doon jëf loolu tax dañ ne malaaka yi sax li ñuy tedd tedd tedd yàlla ubbule gu leen mboole mi xiiwili aljanna yonent bi alayhi salaam daal di koy leeral daa di ne seen borom yàlla day nee na maa ngi waajal sama jaam yi day loo xam ne nii benn bët musul gis lu mel ne moom lépp looy gis Hollywood ak façon fi ñuy noosu ci àdduna bi yépp mënoo gis loo gis lu mel ne aljanna lépp lu la aji tukki nettali mënoo dégg ba mel ba dégg lu mel ne aljanna lu waay mën a xalaat xalaat xalaat mënoo xalaat ba mën a imaginer aljanna xiiwal ya nga xam ne moo fa nekk lii yàlla mi ngi ko waajal ay jaamam suñ borom ba mu koy tabax ay birigi or ak birigi xaalis la ko tabaxe la nga xamee ne nii moom lañ ko doon raaxe mooy misk suuf ba fa nekk ay perle la yoo xam ne nii ci yaquut wal marjaan lay doon lii lépp da ngay gis suñu borom yàlla subhanahu wa taala leeral na ko ci lammiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay yéen mbokk julit borom bi day àjjana def na ko téeméeri daraja gannaaw ba nag mu ne wali kullin darajatun mimma amilu képp ci jaam yi day da nga yeyoo dëkk àjjana daraja ba nga xam ne moom nga méngool waaye kaay leen ñu dellu ci loo xam ne nii at-Tabarani solo na ko ibnu omar nettali ko jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam nee na bokk na ñay mujj mujj dugg aljanna gën faa tuutale lu leen yàlla may koo xam ne bu toogee dana xool ci nguuram doxu ñaari junni at dana ko xool ci nguuram na muy gise fa gën a sori noonu lay gise fi gën a jege mboolem lu ci nekk ci xéewal mi ngi nekk di jàkkaarloo ak moom ñooñu ñooy ñi gën a néewle li leen yàlla may ci biir aljana mbokk doxu ñaari junni at loolu yàlla moo xam naka la toll almuhim suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam nee nañu na nga xamee ni nii mooy waa ajjana yi la ca suuf ña ngay xool ña leen féete kaw comme ni ngeen di xooli biddiw yi ay ajjana yi quatre vingt dix neuvième quatre vingt dix huit dañuy xoolante ku nekk di xool sa morom ni ngay xooli biddiw yi ba baa ñuy yëgg ci ajjana ba nga xam ne mooy ajjana ba gën a kawe ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbokk yeneen tam fa la ñuy dëkk muy firdawsil aala firdaws boobu nga xam ne arshu rahman dong moo ko tiim te suñu borom bi ñuy jaamu ma nga ci kaw arsham boobee loolu moo tax ba mbokk julit et yow mi bëgg yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam sabab loolu ngiree ànd ak moom bokk dëkkuwaay ci firdawsil aala mbokk loolu aajiwul nekk yonent aajiwul dee fi sabilillah waaye mi ngi aajowoo la yàlla subhanahu wa taala wax ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا képp koo xam ne wéral nga sa pas-pas ci yàlla jaamu ko bokkaale woo ko ak dara jàngu sunna yonentam taxaw ci sa kemtalaal kattan même bu dee da ngaa dee sa kaw lal suñu borom dana la booleeg yonente boobu ci àjjanay firdawsil aala yàlla yàlla boole ñu ca ñooñu mbokk ñooñu ñooy dëkk ak suñu boroom marintim waaye ñooy dëkk ak yonent yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne mooy dëkkee ca pale firdaws pale boobu nga xam ne ñi ngi koy tudde wasila nga xam ne yonent bi alayhi salaam nee na ku dégg aji nodd ñi ba pare na nga ñaan yàlla may ma wasila su boobaa da nga dagal ci ñu ramm la mbokk waa ajjana bu ñu demee ajjana yàlla di leen di defaraat da leen di defaraat bañ mel ne seen bàyyi aadama alayhi salaam sunu bàyyi aadama bi ko yàlla bindee di ko dugal àjjana ëppoon na trente mètres ci kaw ay doomam bu ñu dugg àjjana noonu la ñuy duggee ña nga xam ne ñoo ca jiitu seen leeraayu kanam ya dafay mel ne weer yi bu amee fukki fan ak ñett wala ñeent ña ca tegu mel ne ay biddiw loolu di réglu àllaaxira boo xam ne mënuguñ ko comprendre ñun la nga xamee ne mbokk mooy waa aljanna suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana leen def seen jukko ye doon benn jukko ku nekk na nga bëgg sa bopp ngay bëgg sa morom la nga bëggal sa bopp ngay bëgg sa morom qalbin wahid benn xol la leen yàlla subhanahu wa taala di boole doo dégg noonu doo dégg coow góor ak jigéen mbokk àjjana mi ngi noonu suñu borom yàlla melal jigéen ña fa nekk ci ne xuural iin lañu mbokk xuur yooyu nga xam ne mooy xuurul iin yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jigéen ñooñu yàlla defar ci àjjana ñu jigéen a xuurul iin kenn ci ñoom bu génnoon ci kaw suuf la nga xamee ne nii moom mooy leeram boobu muy àndal dana leeral mboolem suuf bi ba mu jeex xet ga ñuy àndal dana xeeñal penku ba sow mu ne la muy teg ci boppam muy koron nga xam ne buur yi ci la ñuy teg muy reen yi ngeen gis loolu muy teg ci boppam nee na moo ëpp valeur adduna ak li ci biiram suñu borom melal leen ci téere bi ci melokaan yu bëri ka annahunna yaquutu wal marjaan inna anshanahunna inshaa dañu nekk ay perle yoo xamee ni nii yàlla subhanahu wa taala mi ngi leen waajal ci biir àjjana waaye mbokk julit xoolal in yooyu lu ñu rafet rafet rafet suñ jigéen ñi doon jaamu yàlla ci kaw suuf ba dugg aljanna ñoom ñoo leen di gën a taaru ñoo leen di gën a rafet loolee kon mbokk julit ay yow mi nga xam ne loo am def ko ci xeesal def ko ci cheveux naturel def ko ci lu nekk ngir bëgg ñu ne la dangaa taaru rek góorgóorlul ba dugg aljana taar bu sax ba fawwu ca la yem taar ak taar bu kenn mënul méngale fa la yem mbokk waa aljana mi ngi noonu sunu borom yàlla bu leen dugalee la nga xam ne moom mooy aljanna da ngay gis la fa nekk ci lekk borom bi nee na daañ lekk daañ naan góor ak jigéen ñi daan jaxasoo yeneen ci bi alayhi salaam ne kenn ci ñoom yàlla dana ko may kartanu téeméeri nit yi waa adduna lu benn nit mën a téeméeri nit mënoon a daje lekk ci add adduna yow doomu aadama kenn dana ko añe wala mu reere ko ca la nga xam ne moom nga fay lekk àjjana amul douche kenn du dem douche kenn du saw kenn du ñandu kenn du xaas dindiku lépp loo xam ne lekk nga ko géex lay doon mu nekk parfum yi gën a màgg ci parfum yi ñaq lay doon mu nekk miski di gën a màgg ci parfum yi loolu la suñu borom yàlla subhanahu wa taala di xaare la nga xam ne moom mooy aljanna lañ fay liggéeyi du dara lu dul sabbal seen borom ak noos te sabbal ba ni nga nekk ci àdduna di noyyi nga xam ne noyyi gi du la yàqal liggéey du la yàqal lekk du la yàqal nelaw noonu la sabbal ba di mel ci yéen ci ñoom lii mbokk mooy la nga xam ni la suñu borom wax ci àjjana joojee malaaka yi di wër seen biir di dugg fu nekk di leen sargal ak ndokkeel di leen wax salaamun aleykum bi ma sabartum texe ñeel na leen ci muñ gi ngeen muñoon ba fitna yi adduna yóbbaale wu leen ba ngeen mën a mérito la nga xamee ni nii moom mooy àjjana ji tey te mbokk adduna ngoo ko tey da ngay gis ne lu bari ci suñuy doom ñi ngi teg seen bakkan ci biir océan bi jàpp ne il faut ñu dem Europe ngiree am lu ñu fa am lu bari ci ñoom dañuy sànq seen diine sànq seen waxtu julli sànq seen mbañum rus waaye mbokk loolu même boo ko jotee ndax dana yàgg ak yow déedéet loolu moo tax ba kon lan moo war ci jullit bi xellu yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam nee na place fi ñuy teg ab yar ay un mètre ci àjjana nee na moo ëpp valeur adduna ak li ci biir adduna loolee kon lu mu lay jàngal nga la way bu la dara tax ci adduna looy topp ba yàlla xañ la àjjana jooje nga xam ne defaral na la ko ba pare xaarul ku dul yow ay yéen mbokku julit ngal la waay bég leen àjjanaa ngi noonu képp koo xam ne dugg na fa dee jeex na ba faw àjjana kenn du fa dee doonte ne sawara it kenn du fa dee waaye sawara moom suñu borom nee na du ñu dee du ñu dund ndax mbugal yi ñuy lekke amma àjjana sax ba faw ci xéewal waaye it kenn du màgget xoolal xiiwulu adduna milliardaire bu mu mën a doon su demee ba am téeméeri at soxlaatul milliards yi am na àjjana doomu aadama yi dañuy gën a taaru dañuy gën a bees dañuy gën a rafet mbokk àjjanaa ngi noonu feebar jeex na kenn du feebar kenn du am loo xam ne aw tiis la bokk na la ñuy jëkk a wax alhamdulillahi alladi adhaba anna alhazan ñu ngi sant yàlla mi ñu teggal tiis amul lenn lu lay naqari amul lay xalaat ne lii ëllëg ki si biir mën naa changé lii mbokk mooy la nga xam ne suñu borom yàlla dana sant malaaka yi ñëwoo leen ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون àdduna ngi noonu yàlla mu ne may naa leen ko ngeen donn ko kenn du ko donn ci yéen milliardaire loo bëri la bëri la bis la na ñëw nga dem say doom donn ñeneen donn ba yàlla yàlla mujj nekk aji kiy donn amma la nga xam ne moom mooy aljanna loolee da ngay gis ne amul kenn ku koy donn ci yow ndax doo dee ba faw suñu borom yàlla ubbi fa ay dex yoo xam ne nee na yii day dexi meew la yii dexi sangara la yii dexi lem la yii ay dexi ndox la yoo xam ne benn bokku ci ak la ngeen miin ci kaw suuf ay yéen mbokk julit ajjana joojee bu ca doomu aadama yi nekkee ak la leen yàlla subhanahu wa taala may ci ay yére ay suwaa yoo xam ne sundusin day doon suwaa yu woyof ak suwaa yu diis takkal leen ay asaawe min zahab lañu oor yi ak lu'lu ya nga xam ne moo leen di xaar ñu jaxasoo seli de terre amul biir aljanna loo ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla defal la ko xatta ñi dundoon ba faatu amuñu ay doom suñ demee yàlla may leen ay doom ci biir aljanna sunu borom dana leen bàyyi ba xéewal ga daal di tar ci ñoom lool borom bi subhanahu wa taala daa di woo waa aljanna salaamun qawlan min rabbi rahim suñu borom day woo waa aljanna waa aljanna siggi jàkkaarloo ak seen borom ndax doomu aadama mën na imaginer loolu yàlla mi nga xam ne moo bind lépp lu taaru ci loo xam ak loo xamul yàlla moom nga xam ne jurit ñi mbëggeel bañ koy bëgg àddina lay gën a mate ñu dem jàkkaarloo ak seen borom borom boobu loolu lay wax ne wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira kanam bi kanam yi jàkkaarloo ak seen borom kanam yépp dana doon loo naat ngir xool ba ñuy gis yàlla donte ne ni loolu mbir la moo xam ne nii yonente bi salallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne mooy jarir ibn abdullah ne na toog na ak ñun benn guddi weer wi na dang ci guddi fukki fan ak ñeent yonente bi alayhi salatu wasalaam na ma ndax yéen a ngi gis weer bi ñu ne ko ah yéen yàlla yéen weer kay mi ngi ni ñëpp gis nañ ko mu ne xam leen ne day su ngeen duggee biir aljanna sa tarawna rabbakum kama tarawna alqamar la tudaamuuna fi ru'yatihi da ngeen jàkkaarloog seen borom ni ngeen di jàkkaarloog weer bi kenn ci yéen du ci sikki sàkka waaye nag mbokk loolu ajjana lay am am naa képp koo xam ne danaan la kaay ma wan la yàlla ci kaw suuf wallahi mi ngi la bëgg a yóbbu ci yoonu shaytan suñu borom yàlla kenn du ko gis ci kaw suuf loolu tax yeneen ci yàlla Moussa keroog bi mu jàkk bi koy yàlla di waxee moom muy dégg mu ne kay yàlla arini anzur ilayk yàlla may ma ma xool la rek suñu borom dana ko munoo maa xool preuve ba mooy ba suñu borom feeñoo tund wale konte wetam jaaluhu dakkaan daf ko def mu nekk loo xam ne lu mokru mbax la ba Moussa sax xëm ci loolu moom kon mbokk kenn du gis yàlla ci kaw suuf amma yàlla boo duggee aljanna bokk na ci xéewal ya mooy gis nga ngay gis sa borom waaye jaam yi buñ gisee seen borom seen borom yàlla dana leen woo ne leen yaa ahli aljanna ey yéen ña ñu àjjana ñu ne ko labbayka rabbana wa saalayk yàlla ñi ngi lay wuyu di nangu sa càng ci ñun mu ne mooy yéen waa àjjana baa kontaan ngeen baa gërëm ngeen ñu ne ko mooy yàlla lu ñuy def ba du ñuy gërëm jagleel nga ñu loo xam ne jagleel loo ko kenn ci say mbindaafam mu ne dama leen a bëggoon a dolli lu gën loolu ñu ne ko ay rabbu lan mooy li gën a màgg àddina ji suñu borom subhanahu wa taala ni bis na ki tey day uxillu alaykum ridwani fala asqatu alaykum baadahu abada bis na ki tey kontaan naa ci yéen lu leen neex def leen dootuma leen mere ba faw mbokk yow ñu bëgg liberté liberté mi ngi biir aljanna waaye liberté amul ci kaw suuf loolu ay slogan yu ñuy naxee doomu aadama yi rek la soo bëggee liberté lu la neex def lu la neex wax lu la neex am ci amul benn bakkaar bu cay jógee amul benn risque bu cay jógee amul benn conséquence bu cay jógee fexeel ba dugg aljanna lu leen neex def leen lu ngeen def neex na ma loolu mbokk moom la borom bi di wax naan wa ridwanum min allahi akbar lay ngërëm ba jóge ci yàlla moo gën a màgg loolee tax ba mbokk ñu ngi leen di woo gannaaw ba ñu woo seen bopp nañu góorgóorlu jëkkantewaat jëm ca ajjana dund gi ñu nekk dund bu gàtt la bis boo ci jógee day mel ni yow musoo fay nekk abadan te it kenn ci ñun xamul fan la ko dee di bette wallahi kenn ci ñun xamul fan la ko dee di bette nañu góorgóorlu ci loolu góorgóorlu ci def lu baax gannaaw ba loolu ñu feeñal ko ci suñuy jëf waaye feeñal ko suñu njaboot suñu borom moo ne jëkkante leen ci sama àjjana ji ca mooy àjjana dugg fa baax na waaye bokk ca daraja yi gën a kaw yi dara gënu koo baax ca mooy gannaaw na gannaaw farata yi góorgóorlul ci naafile yi waaye suñu borom nee na ñuy jëkkante day ca raw muy ñii ña raw ci jëkkante ba inna alladina hum min xasiyati rabbihim mushfiqun mooy ñi nga xam ne ragal gi ñu ragal seen borom dafa tar seen biir xol walladina hum bi ayati rabbihim yuminun ñi nga xam ne seen aaya yi borom dañ koo gëm weddi wuñ ca dara walladina hum bi rabbihim la yushrikun ñi nga xam ne dara jarulu leen ñuy bokkale seen borom walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajihun ñi nga xam ne ñi ngi def jaamu yàlla ba pare di ragal maa yàlla namm na li may def suñu borom nee na ulaika yusari'una fil xayrat borom bi nee na ñii ñooy jëkkante ci yiw wahum laha sabiqun te ñii ñoo ñu jëkk ci yiw googe góorgóorlu leen mbokk julit jëkkante jëm ci yiw lu leen di jegeel seen borom yiw wu leen di jegeel la nga xam ne mooy ajjana xool leen heure yi ngeen di def ci loo xam ne amalu leen benn njëriñ ci kaw suuf temps lu cher la góorgóorlu lépp lu jaar ci yow doon loo xam ne dalay jegeel sa borom lu la jegeelul sa borom rek pertement la bu lay soril sa borom sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na bal tusiruuna alxayata addunia wal axiratu xayrun wa abaqa li ëpp ci nit ñi la ëpp seen i effort seen i kër-kër ñi ngi ko jagleel adduna te suñu borom moo ne day alaxira moo gën ci alaxira mooy sax adduna lu mu neex neex saxul adduna lu mu naqari naqari saxul kon borom xel mooy ka nga xam ne mooy gënal àllaaxira ci kaw ak la def ñuy dëkku ndey yonent bi ak i sahabaam ak mbokk yi yonentam ya nga xam ne ñoo ñu gën a kawe allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaba annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin